seet si ma nekk di sangu fii xaay show bi ak kii la foon bi la wala ci la ci la wala bi la bi la wala ci la ci la wala bi la les twins DJ dans la place ci la wala bi la bi la wala ci la ci doon kenn xamu ko bi la wala ci la ci la wala bi la yow bi la wala ci la ci la wala bi la bi la wala ci la jumeau animateur radio. Premier jumeau animateur télé. wala pila pila wala jila jila wala pila pila wala jila bari no tanal bulu ne pila wala jila jila wala pila jila wala pila pila wala jila pila wala jila jila wala pila jila wala pila pila wala jila bari no tanal bulu ne Il y a Pile Wole Jile, Jile Wole Pile, un grand bonsoir bien sûr à tout ce beau monde qui nous regarde actuellement. Oui, votre chaîne TV, la TFM, dans Hello Ado, avec euh, The Twins DJ PNG. Voilà donc, euh, je sais pas, il est où jumeau à moi quelque part dans la nature. Comme d'habitude, vous le savez bien sûr, c'est le mois de décembre, euh, des programmes en n'en plus finir, euh, des tournées de gauche à droite, des arbres de Noël en n'en plus finir. Il est quelque part, bien sûr, en train de faire plaisir à des milliers de gens, des enfants, des autorités, des parents. Sur ce, one love Ali, mon jumeau à moi, Jandal Boy. Na job bi nice foofu Voilà, donc, euh, moi, mon nom, c'est euh, G, Gigi Donc, il n'est pas là aujourd'hui, mon jumeau, pour nous accompagner. Mais ne vous inquiétez pas, vous serez servi avec euh, plein de nouveautés. Voilà, des hits aussi et des sons qu'on va vous faire plaisir. Voilà, donc, c'est le mois de décembre. C'est le mois le plus beau. Vous êtes bien dans Hello Ado avec The Twins DJ PNG. J'espère que vous avez passé un bon week Le samedi, c'était... Euh, veille euh, de Noël. Le dimanche, euh, le dimanche oui, c'était jour de Noël. Encore une fois, joyeux Noël à toute la communauté chrétienne, bien sûr à tous les musulmans aussi qui ont fêté Noël avec nous ensemble. Le dimanche, euh, PND, ils étaient au Grand Théâtre. Oui, vous avez suivi l'événement. Oui, c'est une petite galée. Def nañ fa benn passage vite fait donc on remercie tout ce beau monde qui avait fait le déplacement. Et puis, euh, de passage, je tenais aussi à remercier notre DG personnellement, Monsieur euh, Youssou euh, qu'on a eu à voir, à côtoyer un tout petit peu avec mon jumeau. Et puis voilà, qui magnifie bien sûr la sauce, qui regarde souvent l'émission Hello Ado. Donc de passage DG, nous avons def mention spéciale. Et puis j'en ai profité pour passer mon phone not notre DG, mu wax ak sama maman Mami Ange elle adore bien sûr notre DG Youssou Ndour euh, ses son et tout donc euh, Mami Ange gros bisous à toi keroog kontaanoon na quoi bañ ko passé suñu DG et puis notre deuxième papa monsieur Mbaye Dièye Faye juste après concert ba mu jeexee dafa def lu nice mu ne xaar ma yóbbu jumooy direct chez eux donc euh, Grand Baye ñu ngi lay jaajëfal avec toute sa famille en train de regarder Hello Ado

tout la famille bien sûr euh, waa Sen Saloum de passage ñu ngi leen di jëfal tey matinal bi lañu ñu egsi fii sax Dakar on a fait juste direct ici dans les locaux de la TFM voilà tournée bi day continuer pareeguñ donc tey juste suñ paree émission dañuy dugg Thiès donc xam ngeen ne tey sénégalais yëpp mun naa ne ñoo ngi Thiès quoi parce que suñu DG moo ngi foofu y aura un big méga concert bien sûr euh, à ne surtout pas rater Thiès. Et puis juste après, PNJ, ils seront en discothèque internationale, je dis bien, discothèque international hein, son amour fan. Voilà, le tout mixé, remixé par PNJ. Ça sera au Dosso Night Club. Oui, ce soir, hein, dañuy pare rek waa Thiès préparé wu leen ah dañuy pare rek dugg foofu. Sur ce, demain ñoo ngi seeni booy caméraman yéen dama la leen de toog leen fii da job <laughs> ñu naan dañuy dem toppoo leen ñu voilà demain on est à Saint-Louis bien sûr à ne surtout pas rater waa Ndar préparez wu leen et puis on va clôturer en beauté ce samedi décembre où ça en ville cercle mince à ne surtout pas rater ah ben on va regarder un joli clip euh, en attendant de revenir bien sûr pour vos dédicaces et le tout oui dans Hello Ado Let's go euh, via K-Black, un joli clip que vous avez. Bazardé, ba, ba, bazardé, bien sûr, un son qui cartonne, euh, qui fait le buzz actuellement. K-Black, euh, voilà, c'est le mois de décembre. c'est le mot le plus beau ah faut oser le dire parce que gaale boo leen dem gars yi dañ koy décorer mbedd bi soo leen génnee di ngeen gis euh, décoration yu nice yi donc voilà donc c'est le mois de décembre ah j'en profite aussi pour euh, faire mention spéciale à tous les enfants voilà qui adorent le mois de décembre car on leur offre de jolis euh, cadeaux de Noël en en plus finir de passage ñu ngi leen def big mention spéciale à tous les enfants du monde bien sûr qui regardent actuellement Hello Ado, c'est permis de nous suivre via, via Snapchat. Il suffit juste de taper Hello Ado ou bien vous mettez PNG Show ngeen yokk ci numéro 1 c'est-à-dire PNG Show 1 via Snapchat. Émission bi képp ki nga xamante ne tardé na ko voilà ngeen dugg YouTube et puis ngeen taper Hello Ado di ngeen suivre émission heure Kana yi c'est-à-dire les vendredis aux environs de une heure du mat mën ngeen ko am. tamit euh, via le net ngeen seetaanaat ko donc ça se passe comme ça bien sûr l'ambiance euh, avec The Twins DJ PNG dans Hello Ado voilà donc euh, c'est permis aussi bien sûr de nous envoyer vos textos oui euh, vos textos via Snapchat ah ñu vrech leen ko si tàng tàng bi ñu lire ko en direct car yéen tamit si ngeen bokk ah voilà donc euh, vieux da ngay tijji sama kii bi voilà parce que à mesure son bi bu ko bu ko rus quoi tëji ko yaa voilà ma dama bëgg di dégg son bi a vieux bu ko di tëj ah tëji ko rek ma si foo quoi <laughs> de passage ñu ngi koy jaajëfal vieux avec toute son équipe bien sûr gars yi nekk si ginnaaw ñoom ñooy job souvent job bu nice bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax Tout à l'heure aussi, on va vous mettre euh, bien sûr quelques extraits via Snapchat ah. yow tey foog ma sonal la quoi tey foog ma sonal la foog ma jox la menu bi nii nga dugg Snapchat ah parce que ñu ñuy suivre via Snap dañu bëri ñu may leen euh, quelques extraits bien sûr. show beeg ambiance yi PNJ à Saly nu mu fa demee woon Mbour. démb Kaolack wi au Sen Saloum. c'est bourré de monde. beautiful. Et aujourd'hui, bien sûr, à Thiès. sama caméraman yi moom suñu demul moom dañu am problème quoi ci convoi bi ngeen di bokk ah anyway y a pas le feu voilà de passage euh, mention spéciale à une diva qui a habillé Must Ji elle se nomme Eva de Pod et Marichou sûrement dañu seetaan euh, série boobu voilà Eva de passage tey euh, lui qui a habillé Must Ji tout beau tout mignon en mode swag cause yéen a ma gën a c'est le mois de décembre Voilà donc aujourd'hui on va profiter pour lire un maximum euh, de textos hein, car comme vient de nous le dire on a petit problème avec le serveur donc on va essayer de lire maximum de textos que ce via Snapchat euh, par euh, texto bien sûr en train de nous regarder, il se nomme, euh, oui, Hamza Dalla. Donc, mention spéciale à lui euh, ce, oui, vendredi, euh, à ne surtout pas rater. Il vous invite, vous tous, au Grand Théâtre pour une première Hamza Dalla avec tout le buzz là, bien sûr. En train de suivre Hello Ado. anya dey dance roro anya dey dance nana o oh, eh oh, anya i sing you the song papanya. Alors si c'est bon vieux, on va faire euh, plaisir à toute l'équipe euh, de Buzz en train de nous regarder un joli clip euh, pour leur faire plaisir. Et puis on revient bien sûr pour les dédications en direct bien sûr sur la TFM dans Hello Ado avec Twin City DJ PNG. Vieux si c'est bon, on y va avec les clips. Let's go.

aka Pablo Escobar Même sum oh. e la neexul nangu li rab yi bokkul sum fi si gem sa raba doon Cherokee oxo wooye ma chiffre di roko duma la kajam lay noxo chasse le gibier rep ko vrai pour le croco taamay góor yoo xam ne pour ñu am fit yi ñu am ku di escorter matuloo góor bu dee boo solee sa affaire du barke ñun dañu viril ma nigga boo mënul xeex utal vigile ma nigga Gis ma di signe, boo wetee hate c'est pour les bitches ma nigga deretu toro si xuri jot ay menaces di am puri dana jóge boîte dem julli ay punchline ay punchline sama kaye kuri même soo ma hate nanga ko jaare si buntu ayo bu fekkee bu share du yuugu lu ñi xuloo booba léegi di sale yéen ger ngeen déclaré mais arrêt du duggu ndax booy ay bitch la hit hit hit hey jees daf ma kolle ma booy ay bitch la Hustler puff down the galley and boy ain't bitchin'. Boy ain't bitchin'. Boy ain't bitchin'. International abanan, my boy ain't bitchin'. My boy ain't bitchin', your boy ain't bitchin', my boy ain't bitchin'. Hey, yo, Flack. Let's do something a little different, you feel me? Ladies and gentlemen, I go by the name of Young Flip. Some people call me Dollar Valley. Some people call me Mieze. But either way, <laughs> check. Uh, yo. ñëwal nga apprécier ci kaw ma def fi se prend la fessée nekkul money man damay apprécier même jamono bu ma yeewu faja te d'apprécié tojal parce que capoeira dafa yeexoon mais xeex nañ ko loolay capoeira ni nga am na cachet am na leer sa cachante ak zo faut pas faire ça wel ne nga du ma tourné su ma solee lunette fumée gel yi dañu may allumer ni nga dam ko yàgg a taal bi yàlla moo ko taal moo tax mu yàgg a prier money money tas de billets te bu jeexee dañ koy août mel ni mois de juillet mois de juillet bu jeexee dañ koy août mel ni mois de juillet bose mois de juillet I'm so motherfucking telephonic. Tangi sama ist Thomas. AKA Pablo is Comas. Mensum lanehul, nangul ni rabi bokul sum finekul. Nyawasi gembi se rabadon shiroki oho. Oemo si Freddy Rocco. Exclusivité. Voilà, sur ce, je vais dire, euh, je vais accueillir euh, notre invité surprise du ma wax tur bi rek dama ko naan champion. yee pour mu kamoon si gars yi nañ ko jox euh, en attendant micro am vieux coachel micro bi voilà gars yi micro voilà ok d'accord donc Omzo donc ñu ngi koy ñaax fekkee ne mën na insister waat rapidement ñu defaral euh, sama invité micro am ak kaskam mu ñëw tasaare fi vous serez gâtés ah je dis bien vous serez gâtés oui today euh, dans Hello Ado waaye même ma dala vélo bi ma xool même ko même ko coole de man e la ñuy woo ñoom ñoo bay daw su may ñëw I'm so motherfucking diabetic tangi sama estomac aka Pablo Escobar même sum la neexul nangul ni rab bi bokkul sum fi nekkul ñëwaat si gem bi sa rab doon siro ki oxo wooye ma sifre di roko duuma la kasham lay noxo chasse le gibier ref ko vrai pot de croco damay góor yoo xam ne pour am fiti pour ñu am ku ma tout le corps bu dee boo solee sa affaire du marqué ñun dañu viril ma nigga boo mënul xeex utal vigile ma nigga gis ma di boo wete hate c'est pour les bitches ma nigga tere du toro si xuuri ay menace di am puri dana jóge boîte dem julli ay punchline ay punchline sama kaye kuri même sama hate nan ko jaare si buntu ayo bu fekkee bo share du yuuxu lu tax ñi xuloo di sale yéen ger ngeen déclaré mais arrêt du dugg na boy ay bitch la hit hit ma koole ma boy ay sax abanaan ma boy ay Een boy ain't pikken, je boy ain't pikken, mijn boy ain't pikken. Hey yo, Fleck. Let's do something a little different, you feel me? Ladies and gentlemen, I go by the name of Young Flip. Some people call me Dollar Valley. Some people call me Mieze. <laughs> But either way, <laughs> check. Uh, yo, ñëwal nga apprécier. Qui comme ma défi se prend la fête. Hamza Dollar, Dollar Valley. On dit bonsoir, allô? Allô? yeah man naka la mais yaa mais yaa ngi en live on nga ñuy tegal ay affaire de ticket gars non maa ngi nii de maa ngi nii mais Omzo ñoo ngi nii di seetaan en direct Dalla Valley bi exclusivité bi mais joyeux Noël Omzo Dollar gars yi waaw mais ñoo ngi nice man gisoo ni may waaj ni may waajalee grand théâtre bi xanaa pile wala ji la ma xool ndax branché nga booy non jum nga booy pii ngay waxal meen. non daanu nga. waaye <laughs> yaa ngi en direct nii de wala da ngay perte réseau nii <laughs> mais mais kon yow daal sa yooyu génn ko foog nga ànd bu xees quoi. non ah yéen rappeurs yi noonu ngeen mel quoi. non même pas ñun problème boobu mun na xees mun na ñuul. ah ok voilà Omzo yaa ngi en direct lan ngay wax sénégalais yi lan ngay wax waa Buzz la fans yi ak lépp kan ngay souhaiter joyeux Noël ah bonne année. bonne fête à tout le monde man de ñëpp laay waxal même ennemi yi maa ngi leen di nuyu euh, di leen souhaiter la le meilleur wax dëgg yàlla bonne fête ñu ngi période fête j'espère que yéen a ngi dund fête yu neex di gën a invité gars yi rek. Mm-hmm. fête bi ginnaaw suba la incha allah grand théâtre. vendredi. instant yi waaw instant yi kay si kay presque jeex na. ok kon yaa ngi si préparatif yi actuellement waaw waaw instant ni comeback show lan ngay promettre sénégalais yi parce que toogoon nga nga jël temps nga ne noonoo non bàyyi nga rab nga ñëwaat si game bi nii lan ngay waajal Promet Gueye benn spectacle bu mag. invité dina ñëw surprise yi dina am lépp dina am daal pour fête bi rafet donc bu may Promet Gueye daal mooy fête bu rafet affaire bi comme bac soo la tudd mooy dañuy célébrer sama retour bi daal donc ñëw leen. vraiment ngay sol sol sol sol yu rafet. bu nekk boobu boobu ba naaj. ok entrée bi jour ji ñaata la paa bi.

cent 178. 01 88. 01 80. 88. ok ñoom Kaana Baas dinañ fa fa nekk mais invité nga artiste rappeur yëpp. waaw waaw sa sa copain dina ñëw sa copain invité nga ko. eh, eh. Ah, ah, lu vendi di nduro eh. eh bàyyi yooyu nag nekk leen gars yi nga invité ko booy fii ngeen def featuring nag nga mel nga fan si nag doo waay wala boog. non loolu jotagul euh, ah mais nga waa Mbour ak lu bëri nga leen. non ñu seetaan ko après. tàggale mais jaay fay Omzo gars yi kontaan nañ si woote bi de. jaajëf jaajëf. nga nuyul ma bu xees bi nga àndaloon keroog émission bi ah. su ma laajtee. <laughs> amul yàqalaate <laughs> waaw ok jaajëf waay Omzo gars yi kontaan nañ jaajëf jantal booy <laughs> c'était Omzo Dollar en direct sur la TFM dans Hello Ado c'est comme ça l'ambiance sur ce il est on man come on man aha uh-huh. kan la ci Nobody can fall. In love is out, nobody. Love is in the air. Yeah, yeah, yeah. Love is in the air. Yeah, yeah, yeah. My shadow, my queen, my everything. I will ever swim in love with you each and every day. Whenever we sleep together. I split my body. One with you, one on top of us. Taking cares about an ice cream. I will never ever let you down, even when the sun goes down. Ever with you in a good time. Ever with you in the worst time. Woman of my life, you're the one I desire. Whoever love me, got to me with you. My one only first and last lady. As you know, I am a bifal, I know what love looks like. Love is in the air whenever fall down. Think about the one you down with. Nobody can fall in love without nobody. Love is in the air. Yeah, yeah, yeah. So now, love is in the air. Yeah, yeah, yeah. Check this out. Love hero. love overdose. DJ push your vibe mob and let it be dub. I can dream in love and wasting my time to knock. Knock, knock, knock, knock your door so open. Open and let me in, get me in, fill me in, let it sounds like I and hip hop old school love is in the air. What's up? <laughs> We hearing the sound. Mais il n'est pas normal hein, today. Non mais le gars là, il n'est pas normal. Respect, Carlo D, le Baye Fall. bon pii wala ji la. wala pii la. pi pi pi pi ji la. mu ne rek sànq dafa dugg en mu ne waa pii wala ji kan la ci war a doon. mais moom dafa juum quoi yow yow branché. dafa jiw dafa jiw mu wax la pii la. de ah. <laughs> naka la. cool yaa am la. oui cool. kontaan nañ si yow. merci beaucoup. mais nuyu si bi ñu may nii amul. live live nga ñu may nii. waaw xam nga yow loolu ngeen mérité. ah foofu la toll. cadeau de Noël bi nga may nii gars yi en direct nii. live bi la toll. ah you know. love in the heart. love is in the air. yeah nice nice song yeah. nice remix aussi quoi. merci beaucoup gars yi kontaan nañ si exclusivité yi. tout récemment yàggul ñëwoon na fii nga indil ñu trois singles. yoo xamante ne dekkoon nañ fii gars yi aimé nañ ko. Mm-hmm. laaj laaj nañ ko kii wal sa micro bi bu baax. mën na dégg parce que guitare moo ko kenn. voilà baax na nii ah. all right. yeah comme ça ñaaña mën la dégg bu baax. ah ma dégg ko moo gën a gaaw parce que ah. bëgg naa mu dégg mu baax. comme ça ñaaña dégg la nice ma. waaw. yeah ok all right. yéen foo jëm. <laughs> ñoom tamit ñoo ngi si biir ñoo ngi kamoon si. kaay kaay kaay. <laughs> sama gars yi kaay kaay kaay leen yéen tamit si yéen bokk. mais gars ana béy. waaw waaw waaw promotion le 31 la ñu ñëwoon def ci quoi. waaw sama waa ji. man man dama fi ñëw pour le 30 ans <laughs> la ñu a def sama waa ji. ok yow kañ la kañ la seen. le 30 ah ñun le 31 la. le 31 le 30 waaw nañ ci biir nañ ko ñu bàyyi ci biir respect. waaw comme dañu war a dem. waaw mais comme du ma fan la tey fan ngeen di dugg ni xam nga ñu ngi si arbre de Noël waaw arbre de Noël yi gis nga moo tax tey beneen chef bi sax nekku fi. ah sama gars yi. waaw gis nga waa vidéo bees gars lii laa man daar la gars yi surprise bi nii. promotion le 31 la ñuy def. <laughs> waaw moom promotion le 30 la ñuy eh, def. fekk ma def fii promotion le 30. <laughs> ñëw def le 30 ak. xam nga lii mooy lan. <laughs> Euh. Ah, mooy mooy ñaar ñaar ñu sësante te ñu rëkkante. c'est-à-dire que Sénégal lii mooy dëgg. Ah. te lii mooy unité. waaw nationale. Uh-huh. du dëgg. Carlou D bi bu bees ñun le 30 décembre la. ci ses uh-huh. ci même salle bi. moom le 31 décembre ñun du ñu teggi même matériel bi. kon boo yi nekk ci hip hop bi. wala beneen style whatever. lii mooy Sénégal. fii lay mujj ah. donc euh, clan beeg euh, clash solo waxoon naa musique du du du compétition. non non non non dégg naa grand grand Youssou. Mm-hmm. di ko wax nee na passion la. passion la du sax passion la. dañ ko dëgg di ko def te gaal seen yaatu na ñëpp xaj nañ non non yaatu na lii mooy affaire bi ñun dañuy def musique de 7 à 77 ans béggal ñëpp remercier TFM parce que lii kii xam nga mënoon na saa ñëw nekk ci émission bi ñun ñu taxaw fële mais suñu sañee ñëw dugg si mu fën quoi ñu def lu la neex fi seen kër la waaw seen kër la kon rendez bi la rendez la salle unité africaine 6S ku ñëwul teel bi ñaata la entrée bi 5000 la VIP 10 000 5000 ban heure 19 heures 30. 19 heures heure sénégalais la wala. non ah. moom xam na nu mu demee. heure suisse. ok voilà 19 heures 30 20 heures na gars yi ñëw ku ñëwul doo. ok waaw. le 30 lan ngeen di promettre sénégalais yi comme cadeau de wax. dañuy répertoire bi bees depuis 94 ba ba 2017. ñu jox leen yeneen exclusivité yi pour album bii di ñëw en avril unité nationale. album bi album bi déw bees bi di ñëw. bu ko defee bu ñu ci paree le 31. après ñu gungewaat Carlo famille bi dem mm. famille ah, ak waa Sénégal bi yëpp fekk saa yi dafay nekk le 30 ñu ñëw bërëng jërëjëf kër kon jeex na le 30 ah, xaama jox xaama jox leen paquet Hollywood yi. Hollywood waaw ñu yóbbaale. reesal ah. cantal boobu ngeen yóbbaale affaire yi. Hollywood mais gars kontaan nañu ah si déplacement bi te job bi nice la. bi rafet na trop. mais arbre de Noël yi yéen a ngi koy tasaare de bàyyi leen li ngeen di daje nañu Magic Land bàyyi leen li ah non gars yi dañu bëgg nag dañu ah. soxla. foog ñu bëggal xale yi mais descente bi naan gis bu soxor bi ngeen gaare <laughs> foofu de. bàyyi leen <laughs> voilà demee tamit ñu ngi woo ñëpp am na am de sang ah de sang centre de transfusion sanguine à 9h traditionnellement ñu koy defee comme chaque année ak sociale bi daaw ñoo woon foofu sax voilà ñu ngi woo ñëpp ñëpp ñëpp important ñu joxe seen deret pour sauver des vies ñu ngi mm-hmm. lancer vraiment message ñëpp mm. sama gars moom confirmé nañu Carlo famille Ami ñu ngi ci don de sang. ñu ngi bi voilà ok ok loolu day nice. loolu la ñu marqué anniversaire bi donc kër gi. ngi woo ñëpp ñëpp ñëpp itam Baye Fall ñu ngi lay bàyyi nga yeggali. mais déedéet dafa baax. non dafa baax dafa am solo. merci PNG man de dinaa maye mais lu <laughs> mais kon naan leen jaayoo. one love gars <laughs> sama gars donc c' était le groupe euh, Biddewu Bees gis ngeen arbre de Noël la ñuy dem nii donc euh, dañuy dem rejoindre sama jumeau moom tamit moo ngi si arbre de Noël bi donc c' est comme ça c' le mois de décembre des arbres de Noël on en plus finir Carlou D Biddew bu bees Carlou di gars yi def lu nice fekk la si plateau bi ñëw déconné ak yow jàppise. waaw parce que dañ ko seex dañ ko seex après lépp lépp euh, Sénégal benn la. waaw amul amul mer. Mhm. amul mer sama xatul sama copain Amzo ba mu duggee nii nee naa ko game bi xam nga dafa yaatu. waaw mais xam nga tamit. Euh, beneen sànni ma dégg ko ma koy toote nag waa xeer yooyu nag. ah bon waaw ma koy tegal ne ko invité xam nga. game bi warul demee noonu de ah. ñoom ñoo far quoi. ah ñëpp a far quoi benn instant kii mën na dóor nii kii bëggee nii kii fii. franchement. yaa ils sont tous bons donc nañ nañ nañ dawal lépp dans le respect. parce que ay royukaay lañ. ay références lañ tamit bari ñu ngi seen ginnaaw. Mhm. il faut que jeunes yi gëm ne loolu lu mooy réalité bi man j'en suis sûr et la confirmation que loolu moom. parce que ñoom ñëpp ay benn lañu. ok Carlou D gis euh, publicité bi via TFM. gis nga door fa pas de danse yu amul fenn. DJ Boubs ne la nii nga may ko kii bi. nii ak booy man kay challenge. waaw man kay challenge. <laughs> waaw boo ko si fu la neex ngay fële quoi. yow ngay waajal. le 31. le 31 décembre incha allah euh, invité Meloman. je précise. 31 décembre 31 décembre. ok euh, bu bu bu am dafa spécial si ñëpp. ku nekk day fêté d'habitude man sa am bopp 31 sama kër la mu doon fekk. mais dama bëgg a dundaat 31 ma génn dugg ci embouteillage bi dem quelque part. tu vois du coup mu organisé le 31 invité tous les mélomanes. ok amul âge nag parce que fu fa ñëw ku ne di nga fa fekk li lay bégal c'est sûr et certain. donc gannaaw bi de bees bañ fa jógee le 30 dañuy bàyyi sono bi foofu. dañuy bàyyi sono bi le 31 ñu dàbbali yow tamit. 31 décembre incha allah man nag comme 31 la dañuy bàyyi nit ñi reer ba pare. waaw waaw 23 ñu jël seen taxi. waaw fexe ba bu ñuy décompte minute bi. kon fa la ñuy taalee kon la foofu la ñuy commencé at bi. incha allah ok day am ay invité ou bien kàllu di. absolument day am ay invité day am spectacle. spectacle day am musique. musique day am loo xamante ne daal képp kuy doomu sénégalais. Hmm. bu la fekkee bitim réew di nga a wax ne. waaw c'est chez moi. bàyyi yow foog ma wéeri xaw la yëngal tuuti quoi nga mayaat ñu benn affaire ma xool lan laa am fii. bu jaajëf. très bien vous. waaw waaw léegi yoneel si. ah ok all waaw sama waa ji moom sama son bi da ko kii de. ok mais Kaolack di kon foog ñu benn waaw parce que man dafa mel ni sama kii lañ la jox nii de. lañ la coupé la jox nii li ma doon fooyee. Ah. It's unbelievable how human attitude is going down. It's an amazing problem to recognize, babies, to enemies. She gon' give me wife to criminal, girls to boyfriend, religion to passion. Life is like a movie, there's just one word. Do you know who I am? You know what I'm from, you know what I've got. Nobody care about nobody but himself. Who cares? Xale bi dina ma rey. Na na na na na na na na na na na na na dina ma rey. Nan la la xale bi def yow. She's gonna kill me. All right. Kill me. Xale bi moo na moo na. Xale bi nooy na nooy na. tooy na tooy na. Xale bi. <laughs> yaa ma a know. She gonna kill me. Don't kill us. kill kill bi gars émission dañ koy def rajo def ko télé gars yi dañu laaj son bi mhm. buzz beeg bi moom damay dugg léeg-léeg sa snap di gis gars di ko may every time mais nag nga dundee succès boobu noonu quoi. ah mais succès bi nag moom dëgg yàlla. léegi moom ah est-ce que. ñu ngi koy gérer quoi ñu ngi koy gérer ça depuis longtemps. maintenant léegi ñu dañu waratuñu def problème léegi. yàgg nañ ci mbir ko. xam nañ nu ñuy gérer nu ñuy gérer gars yi. ok indi woon nga fi euh, trois single nga def ko si album euh, CD nga ñëw offrir ñu ko. gars yi ñu ko gars yi ñoo ngi ko doon xaar fi jaaroon rek ah. waaw waaw eh Kalle daf ah. dafa war a daw moom tamit. gis ngeen c'est le mois de décembre arbre de Noël yeeg affaire demee nii dafa war a yëkkati donc euh, dañuy bàyyi après Kalle di la wax ne kontaan nañ ci déplacement bi. donc di invité sénégalais yëpp kon le 31 décembre. le 31 décembre. Mhm. ku bëgg a gis live music. exécution jeune. Mhm. l'avenir de la musique sénégalaise. kenn ci ñoom di leen présenter euh, une couleur de ce que ça donne. vraiment c'est au 6S le 31 incha allah. le 31 wax bi nag day mel ni bu yàggee xam nga mais daal je donne rendez-vous à tous les mélomanes. tous les mélomanes yep. ok donc di nuyu tamit la mi Fadi. Yeah. tous les Baye Fall et les Yaay Fall qui nous regardent actuellement. Yeah. dans Hello Ado kontaan nañ rafetlu nañ déplacement bi vite fait nga ñëw. mais gars affaire yu ni ñu ñaaña tamit ne ko xoolal xaaral ma jox la benn kii sax nga yóbbaaleel ko non fa nga yóbbaaleel ko. quand même ah. ma ko ñaaña ah bébé bi nu mu tëddati sax. bi ngeen ma bi yi ma joxoon koy mocc ba léegi. ba ah ah ñaaña moo ko moom nag. merci yow nag ñaaña. d'accord joxal ma ko ñaaña moom moo sa mbos donc mën naa sàcc bosam. ah kon anyway ah merci beaucoup. jëndal bro gars kon 31 ñu daje si ses. jaajëf c'était euh, Carlou D bien sûr euh, le Baye qu'on remercie aussi euh, le groupe euh, Bidéo bu bees c'est comme ça c'est le mois de décembre avec les artistes de renommée internationale ñoom ñëpp am programme gis ngeen gars yi dañ fi jaar ku si nekk nuyoo bene instant ni dawaat si arbre de Noël yi donc euh, ñu ngi leen di jaajëfal bu baax Bidéo bu bees dégg ngeen ko nee nañ le trente ñoo ngi oui CICES à ne surtout pas rater Amzo Dala tamit woon nañu en live and direct moo ngi Grand Théâtre Dip Doundou Guiss tamit de passage ñu ngi koy jaajëfal bu baax place du souvenir One Love Ali waa Reptile Music ñu ngi leen di bëggee ñoom tamit ñoo ngi euh, seetaan émission bi c'est comme ça game bi yaatu na Galsen bi yaatu na ñun ñëpp xëj nañ ci donc ñii ñoo ngi gauche ñii ñoo ngi droite ku ci nekk foo sentir rek nga bounce fa c'est le Sénégal qui gagne paix joie sur ce vieux ñu dem seetaan benn clip et puis juste après on revient les go Vieux, si c'est bon, le clip, on y va rapidement. Voilà, donc c'était Carloni le Bayfal Love in the donc de passage ñu ngi koy big euh, di ko shut up jëlal jàmbi jëlal si kaw ak suuf jëlal jàmbi jëlal jàmbi de sambi lañ nekk jantal booy xanaa ne ko wax gars yi wàññi bi de jëlal jàmbi si kaw ba suuf ngay jël dafa cher bul siisu wala boobu <laughs> <laughs> voilà, donc, c'est comme ça, bien sûr, euh, l'ambiance. Euh, j'espère euh, que vous avez aimé le show de Carlodi Le Baïfal du groupe Bidé Boubès, Omzo Dal en live année direct. C'est Hello Ado, c'est comme ça. Donc, vendredi, Inch'Allah, il y aura émission à ne surtout pas rater. Oui, ce vendredi, oui, il faut oser le dire, heure de non sleep, que personne ne dort. c'est les vacances donc yéen a ma gën a naw à partir de une heure du matin juste après Jakaarlo Kouthia Show PNG Hello Ado donc euh, ce vendredi à ne surtout pas rater de passage mention spéciale à mon jumeau c'est dommage il n'est pas là il a pas fait euh, l'émission avec moi donc waa euh, Biddew bu bees ñoom lañ moom lañ dem euh, rejoindre bien sûr hôpital Fann CTO donc des arbres de Noël à n'en plus finir ñu ngi leen di shadap euh, Bouba sur ce je vous rappelle euh, le programme des PNG ce soir tey suñu paree nii fan lañ jëm Thiès convoi bi dañuy def Thiès suñu déjee sax mooy ngi Thiès dañuy dem stade ba pare suñu jógee seetaan stade seetaan suñu concert oui euh, gis ngeen li Snapchat bi la nii lii sali bi la woon snap bi la leen tegal nii de vite fait nii waaw vieux vieux dafa garaaw quoi vieux da nga ñàng yow gis ngeen Snapchat bi lii sali la woon Kaolac. Euh, donc on était à Saly on était à Kaolack euh, des mix en n'en plus finir y avait du beau monde di jaajëfal képp ki nga xamante ne def na déplacement bi waa Mos Dolly Tangalement Hollywood euh, ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ñoom tamit accompagner nañu si tournée yi dans les régions gars yi dañuy dem foofu def masse génn donc amuñu seen fay koi gis nañ ni ngeen bëggee seen jumeaux yi ñun tamit nu ko raw lañ leen bëggee tey ñoo ngi Thiès. Dosso Night Club juste après concert suñu DG bi donc juste benn anecdote bu graaw PNG du neen du dara moo tax ñu taxaw fii PNG tey su ma toogee live and direct ne PNG kan moo leen njëkk jox micro ñu wax suñu DG lay wax muy le grand Youssou Ndour on était tout petit benn concert sama maman nag fan sa Youssou Ndour la woon depuis qu'on était petit mu yóbbu ñu benn concert ak à Kaolack PJ dem juste après grand bi woo ñu si y avait des milliers de gens mu woo pii woo jii ñu ñëw ñu may ñu ay t-shirt jox ñu micro nii lan ngeen bëgg ma woyal leen comme que pii dafa gaawoon a jooy nag rek commencé jooy et puis man maa ko gën doon jantal nag si laa jëlee micro bi ne maman mu woy yaay seex bu nekk affaire bu daw yaram donc moo tax ma ne leen du neen ñu taxaw fii donc de passage ñu ngi koy wax big respect grand yu suñu papa suñu tonton la ñu ngi koy jaajëfal bu baax tout récemment Grand Théâtre bi gisee nañ ak moom nee na moo ngi suivre émission bi moo ngi rafetlu suñu job donc amuñu fayam de passage tamit ma jël sama téléphone jox ko ko mu wax ak maire bi donc franchement oyof na di ko wax ne mille respect et one love donc c'est avec ça bien sûr comment se dire bye bye et se donner rendez grand mass ñu ngi koy bëggee ñu ngi koy béggee sama caméraman bi c'est comment encore ah eh Pape Fall moom jantal booy la moo coaché donc Pape ne nee na day bokk ci convoi Thiès bi demain on est à Saint-Louis Ndar préparé wul mix club Ndar Saint-Louis et puis samedi dañuy clôturer en beauté oui ça sera bien sûr Cercle Mince en ville à ne surtout pas rater discothèque internationale donc merci beaucoup à tout ce beau monde qui nous regarde vous pouvez nous suivre via Snapchat di ngeen xam lépp lu PNG di teg seen programme Gros bisous, one love, ciao. I don't worry about nothing. I am wearing a nada. I'm sitting pretty. I don't worry about nothing. I am wearing a nada. I'm sitting pretty impatient.